tin gi doon ab feebar njiital réew mi Bassirou Diomaye Faye bëgg koo faj loolee nag bokk na ci li gën a fës ci ba muy jàkkaarloog askan wi gannaaw ba mu xaatimee ak charte digganteem ak organisation patronale yi léegi jëmmal ko moo ci daal di des secteur privé bi gàllu nañ ci ngir jàppale ko naam nag lii rek ci des. gàllankoor yu bari ak yu ne ci biir port bi suri yi magasinage yi taxe port yi deadline yi yooyu. day ajouté wu directement ci ku prix bi nga xam ne moom la nit ñi jëfandikoo. andi ay coppite ci dundin gi doon li nga xamante ni nag jafewul naam nag faw ñu wàccoog lii lee. dans un première temps dafa am loo xam ne moo koy wàññi de profondeur xam ne duutu yokk mooy mu dooleel mbay mi d'abord bala ma ñëw ci dans le médian su fexee ba àll bi li fi nekk ci àll ñu fexe ba mu am ay forage am ay machine am lépp loolu état ko man mais secteur privé itam ñu ñaax leen ñoom itam ñu jublu ci mbay mi ñu ngi koy def at yi ñu jàll yëpp mais mbay mi ñu doon bay su ci état jàppal du dox. bu ñu bëggee yëf yi bar nag faw ñu bàyyi xel li nga xamante nag moom moo di production locale maanaam ñuy dundee li ñu bay. di dinaay wàññi bépp tax ci lu jóge bitim réew ba mu dugg ci réew mi bu ko defee dund gi yu ñoree ci biir réew mi dafay yàqu. la ñu waroon a def bañ demee mooy état Sénégal supervise rek ba nga ñun ñu signé ak ñi nga xam ne ay partenaires lañ. nga xam ne bu ñu ñëwee Sénégal état Sénégal ministre de finance ak ministre affaires étrangères dañ koy dañ koy wari di contre signé mooy tax ñoom ñu gëm ñu. organisation yi yëngu ci wàllum njaay ñoom nag ñoo déggoo ci kàddu ngir jàppal tànk président de la république ci mission am bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Cissé nekk njiitalu UNACOIS Yeessal am nañ yaqin ni fii ak ñetti weer.